Times mooy loolu noonu après feneen la mujjee léegi tey yeneen club yi ñoom ñooy ñi nga xam ne euh, boo génnee les Teungueth et autres amuñu tey des sponsors yoo xam ne nañ ko mën a am tout le temps sur les maillots pour tey euh, mën mën a vendre benn affaire moom mooy la Ligue Pro pour mu gën a yaatal mbir mi tey pour yow fan la affaire yi toll. li ñu mën toll mooy euh, profiter ci vacances mhm. pour lancer le dossier de sponsoring de la Ligue Pro bi ñu defoon ci séminaire ci comment bi ñu defoon joxoon ko au président de la république dans le temps joxoon ko ministre bi mais malheureusement même boo leen gisee sax quand le président nous recevait waxoon joxoon na instruction au ministre pour que ñu xool loolu le football local mais malheureusement bi président joxee instruction au ministre teguñu ci quelque temps mu changé ministre boobu tegaat ci encore beneen temps mu savaat même ministre boobu mhm. donc y avait une instabilité dans le département du sport tel que aujourd'hui dossier boo kii sax dossier du mën truc mooy li ma rek instabilité politique bi amoon ci dëkk bi ce qui fait ce dossier là on nous reprochait fekk fekk def nañ ko mais malheureusement bu amee instabilité au sommet du ministère tout ça mais ce dossier là que nous avons fait aujourd'hui bon ça a trouvé peut-être que euh, l'oreille euh, une oreille attentive au niveau des de, de nouvelles parce que ministre bi euh, na le euh, euh, comment comment dirais kii pour demander que ñu revoir les textes yi nga xam ne ñooy chapeauté le sport sénégalais et dugal nañ ci le football professionnel je pense que sur cette base là war nañu ma def la main de l'état bu ci état dugalul loxoom rek du mën dem société nationale bu ci dugalul seen loxo du mën dem mais bu dee ñun rek ñun président de club nous avons fait ce que nous ce que nous devons faire aussi bu ñu ko reproché moi je suis dans le privé je prends mon argent je mets ça dans mon foofu la ñu mën démarrer maintenant nag bul boo dugalee dara il faut qu'il y investissement mais su amul retour sur investissement. Ah mais quand après man damay toog damay bàyyi. Mhm. et boo ko seetloo man ñun man ñi ma démarré woon avec la ligue professionnelle en 2009 les présidents de club la maa fi des Augustin Senghor. CRC CRC kii voilà non Cheikh démarré wul moo démarré Jaraaf mais sinon partout Mbaye Diouf Dia nekkatul à la ligue professionnelle. ñi fi nekk ñëpp kenn kenn kenn wul. donc il y a deux ou trois ou quatre qui ont résisté. on doit se poser la question président yi ñi dañuy dem ñi ñëwaat te tey hier Amara a a a a jeté l'éponge mais combien il a perdu à Wakam Omar Gueye Ndiaye avait jeté l'éponge à Pikine Yatta Say avait jeté l'éponge Mamadou Gueye ñëw dem beneen Mamadou Gueye ñëw. Mhm. et cetera Casa Sport après y a eu et cetera loolu yëpp comme pour dire que ne les dirigeants ont cette volonté là. maintenant qu'est-ce qu'on nous reproche dañu leen ay administrateurs war leen war leen gérer ligue bi. mais yow su ma la jëlee Grégoire nga Gélique ma dama la war fay. mais toi su ma la bëgg a génne fii 7TV euh, nga am sa salaire bu million est-ce que est nga diriger la ligue bi mën na loolu. mais quand même ñu mën am des présidents de club yoo xam ne ñoom dañ koy def bénévolement sans rien attendre en retour mais nañ ko def ba ligue bi am les moyens pour mën def loolu. mais président temps on a eu un directeur exécutif. et une administration. la fédération au parce que la fédération aujourd'hui en un siège très fonctionnel. ñu ngi koy équipé jox na ligue bi siège jox li Dakar siège kon affaire bi mu ngi avancé ndànk-ndànk. mais les gens sont mais président est-ce que nekkul tamit dem foofu di xool li nga xamante moo di les en direct si si si biir pourquoi pas YouTube wala nekk foofu xam foofu di nga ko monétiser boo amee yenn yenn yenn lii gars di nga foofu di nekk benn retour d'argent mais pourquoi ligue bi amu ko mais dans il faut d'abord avoir ce matériel là on a laissé ça au club ñu koy exploité en attendant ñu xool lan la jural club yi bu ñu paree après ñu doog a syndiqué. du secteur là mais mais bu ñu si gagné baax na mais nous foofu quand même peut-être que mën nañu si nekk un partenariat avec vous parce que aussi avoir une chaîne ça demande beaucoup de choses. Mm-hmm. ça non seulement du matériel. ça demande du personnel mais quand loolu dafay yokk aussi suñuy. su suñu intrant mu ak yeneen dépenses yoo xam ne amuñu ko. mais même bu fekkee dañoo am chaîne fédération moo am chaîne moo moo am moyen yooyu. mais fédération actuellement mu ngi wut ay équipements sur a am lii da nga war a am lii mais est-ce qu'on a ces moyens de de de l'avoir beneen aussi loolu aussi combien ça rapporte léegi les gens waxaguñu ba léegi combien ça rapporte mais tey li ñu mën a wax tey tey tey tey tey tey tey même dans les autres pays. Mm-hmm. li yéen gën a indil xaalis d'abord c'est les droits de télé. Mhm. yéen ñi nekk télévision yi loolu ñu ko wax loolu ñu ko wax mooy. loolu mooy indi xaalis d'abord c'est les doigterie à part la billetterie c'est les doigterie après c'est le merchandising. Mhm. après li nga wax li nga doog a ñëw mais ñun ñu ngi liggéey pour que aujourd'hui la billetterie dox. Mhm. mais bu la doigterie ko mën jël en charge parce que ñun dañuy wax RTS. bi ñu même contrat bi bi ñu am rupture lan la woon ETS nous disait que ñu ne ñu leen amee xaalis. donc ñu la war a fay ñoom te ñoom ñu war a jox xaalis. kon dem à à d'autres pays au Maroc loolu amu fa. Gabon loolu amu fa. mais bu mu dëkk amu fa. monsieur le président